Sëriñ Fallu mooy ab sërif moo yaatu mo bari ngor moo yor mu ñug suuf te fallu yaatu yàllaaw moom daana fekk ku jëm niiraan mu ñor di ko fab yaram ko tabbal ko fil jannaati yàllaaw mbokki asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi wëllëre xarit yi ak soppe yi man Sëriñ Modou Gallass Mbaye maa ngi leen di jox rendez-vous ajjuma incha allah festival salam ca Grand Théâtre di ci woo ñëpp nag di wax ni alaaji Youssou Ndour incha allah moo leen di teeru te tàggal leen ñu bokk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa